bañ ci tegee ñetti fan ci la Omar ibnul Xataab dugg ci lislaam bañ ci tegee ñetti fan rek ci la Omar ibnul Xataab dugg ci lislaam Omar ibnul Xataab nag moom yonente bi ci moom bi mbir mi mettee ba mett moo ñaan yàlla ne ko yàlla na nga dëgëral lislaam ci kenn ci ñaari gaay yi ñoo Omar ibnul Xataab ak Abu Jahlin Amr ibnu Isaaq ndax boobu mbir mi métti na te jullit ñi daal kenn ku am doole ku xam amu ci kenn ku yéefar yi wet amu ci moo tax yonte bi ñaan loolu bi Hamza duggee ci lislaam nag ba am ñetti fan rek ci la Omar dugg ci lislaam Omar nag moom daala nepp li ne lislaam njëkk mu ci dugg nee na yàgg naa toq ci xelam booba nee na moom li ko jaaxaloon mooy dëgër gi jullit ñi am ndax moom bokk na ci ñi gënoon a sonal jullit ñi waaye dëgg bi ñu am nga xam ne loo leen mën a def du tee ñu ñu ñu muñ ko ànd ak seen ngëm ci coon yi ñu leen daa teg yëpp mu fekk ko te gis ne loolu taxul mu mën a dindi dara ci lañ liñ jàpp ñoom jullit ñi leen loolu moom bokk na ci li ma gënoon a yëm moom ci jullit ñi nga xam ne moom jaaxaloon na ma ñaareel bi itam man ci kilifa yi dëkk bi laa bokkoon li sama baay yi nekkoon it ak sama maam yi yonent bi ñëw di ko xas ak di ko di ci wax wax joo xam ne kenn mënu ko dégg loolu it ba tey naqari na ma ñaar yooyu laa booloon ba tey na ba tax na léeg-léeg ma xalaat naa naa nongu lislaam léeg-léeg ma ne daal lii daal moom la sama moom nekkoon daal moo ko bàyyi ci loolu nag nee na sax benn bis moom Omar ibnul Xataab nettali na benn bis nee na dama tëdd ba guddi ma dem ci Kaaba ga nee naa dem ci Kaaba ga doxantu dem ci Kaaba ga nee bi mu demee fekk fa yonente bi alayhi salaatu wasalaam di julli di tari ca kaw nag suratu alxaqa nee na ma di ko diglu mu mu muy tari saar wi wax alxaqatu malxaqa wa ma adraka malxaqa kadabat samuudu wa aadun bilqaaria fa amma samuudu fa uhliku bi taaxiya wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sab'a layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuman di tari di dem nee na bi muy tari ma di ko diglu wax ji maanaam mosuma dégg wax ji mel noonu yéem ma lool jaaxal na itam mu ne ma ne sama xel ma jëkkee gi ne daal kii daal ab waykat la ndax waykat yi yooyu waxee wax ju neex nii nga xam ne dalay dalay dalay téye sa xol ne fi saasa rek mu wax ne innahu la qawlu rasulin karimin wa ma huwa bi qawli shaa'irin qalilan ma tu'minun masalan aay bi daa wax moom dana ko lii du waxi am waykat yéen leen gëmul tus waaye lii ay waxkat ay waykat mënu ko ne ma nag kii ab njabarkat la ndax lu mu xamee lu mu xamee li toq sama xel ne fa saasa mu rek ci wala bi qawli kaahinin maanaam am njabarkat it du ko qalilan ma tadakkaruna tanzilu min rabbil alamin maanaam lii wax ca yàlla la bàyyi ko nga xam ne moom mi ngi koy mi ngi koy tontu fa sax ne ma daal di dëpp man wuti sama kër daal di tàmm di maanaam islam nee na keroog la njëkk a dugg ci man moom nga xam ne moom moom boobu daanaka la ma bàyyi woon ca kéefar ga mooy parparloo rek ak sama dine maam bëgguma ko bàyyi ak parparloo gi nga xam ne moo nekkoon sama sama sama mbir yàlla dogal nag benn bis moom abu moom Omar ibnul Xataab bi coow li bare ci mag ba bari mu ne daal coow li daal suñ bi dinaa ko fay léegi damay dem fekk Muhammad fu mu mën a ne ma faat ko rek su ma ko reyee lu xew gannaaw bu baax na waaye coow lii daal ak dëkk bi nii mu mel nii loolu daal wax dëgg yàlla mënutuma ko seetaan ba muy dem nag ràngoo jeexeem ci la romb benn waay bu ñu wax Nuaym ibnu Abdillahi Naham al Adawi am na ñu wax ñeneen waaye kooku moo ci gën a siiw Nuaym ibn Abdullah Nuaym ne ko waaw Omar foo jëm da ko am ci wet bi foo jëm mu ne ko man de si mi coow ci dëkk bi laa bëgg a laa bëgg a fay mu ko coow lan mu ne ko Muhammad mii nekk fi amee nit ñi diineem di yees yi nga xam ne kenn xamul fu mu ko jël loolu daal laa bëgg a régler tey moom lépp jeex Nuaym Nuaym ne ko ah yow de Omar sa kër nga war a lijjanti xanaa xamoo sa rakk ju jigéen ak jëkkëram ñëpp dugg na ci lislaam fekk moom sax daa njëkk a wax no noay maanaam bi ko noay ne ko bi ko waaw maanaam bi ko noay mu njëkkee wax ne ko foo jëm ba mu wax ko ne ko moom la Muhammad la bëgg rey dafa wax maanaam Nuhaym da ko wax ne ko waaw boo ko reyee nooy def ak banu Haashim maanaam mbokk yonente bi nooy def ak ñoom yaakaar nga dañ la bàyyi ngay dund fii dañ la faat de mu ne ko yow de li ma gisee da ngaa génn xeet yow da ngaa dugg ci diine ji laa yaakaar waaye li nga wax du wax bi man yow yëpp falewu ma ko mu ne ko nag yow it xaaral ma wax la lu gën a yéemu loolu mooy sa rakk du jigéen ak jëkkëram ñëpp dugg nañ ci lislaam léegi li nga waroon lijjanti mooy loolu mu ne ko sama rakk parce que ñi moo ko daal di daal di daal di dëpp wuti kër wuti këram bi mu ñëwee ba ci buntu kër gi dégg mu mel dañ ci jàng alxuraan fekk booba dañ naa def bu Omar génnee rek ñu woo xab xabaab ibnul arat xabaab ibnul arat ñëw mu leen jàngal alxuraan fekk booba day waxtu woo Omar daa génn day Omar di dikkaat nag dégg maanaam ngun-ngun bi xabaab moom ba mu yigée ne Omar dikk rek la daal dugg ci ci rondal gi làqut fenn suñu jàngalekat suñu daara bi moom la daal làqut gaañe itam jël téere yëpp maanaam jëkk Fatima rakk ji ak ak ak ak jëkkër ji yëpp jël téere bi ñu doon yor taxaare ko maanaam denc ko Omar ñëw dugg ci biir néeg bi ne leen waaw yéen li may dégg muy ngun nguni fii lu mu doon ñu ne ko ah noonu de da doon waxtaan rek mu leen waxtaan lool ko yëmu leen ci mbaadu da ngeen a dugg ci diinay Muhammad bi ay jëkkër ji nag jëkkër yi Fatima daal di koy doon daa ne ko waaw bu fekkee dëgg daa ànd ak Muhammad bu fekkee dëgg dëgg daa nekkul ci seen diine ji nekk ci Muhammad moom loolu loo ci xam man fekkee kee daa la muy woote dëgg la itam loo ci xam mu ne ko loolu nga may doon daal koy song daal di ko tàmbali dóor bi mu ko dóoree daaneel ko ba war ci kawam rek rakk ji Fatima mi nga xam ne moo nekkoon soxna si waa ji ñëw moom it daal di koy bëgg bi mu ko bëggee Omar jël daal di koy pes Omar doon ponkal bi mu ko dóoree de maanaam maanaam maanaam deretam tàmbali génn jigéen jigéen ji itam mel ne moom xooleetu dara ne ko daal lu mën a xaw daal noonu dugg nañ ci lislaam noonu daal moom lu la neex def waaw dëgg moom la ni wëtt dëgg mi ngi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wasalaam moo tax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Omar nag ci jataay boobu nag lim def borom kërub kee ak rakk ji mu dóor ba daratam génn loolu xaw ko maanaam naqari itam mu naat ci am kers daan ne waaw léegi li ngeen doon jàng wan li may may jox leen ma ko ma xool kéet bi ngeen yoroon di ko jàng ma jox leen ma ko ma xool jigéen ji Fatima rakk ji ne ko duñ la ko jox ndax yow sobe kese nga te sobe nga moo tax te téere bi moom yàlla ci yoon daa wax ne laa yamassuhu illa almutahharun masalan ku sobe ab sobe ku sobe wala nga daal taq dara ci sobe doo ko laal moom téere bi moo tax duñ la ko jox faaw da ngay dem sangu ji maanaam doog a ñëw ñu jox la ko aywa Omar daal di nangu la lépp daa dem sangu nañ ko ko digale daal di ñëw mu jox ko téere bi fekk boobu ñu ngi jàng sóoratu Taaha lañ lañ lañ doon jàng mu tàmbali moom ci moom di jàng maanaam daa mel doon jàng wala dañ ko ko doon jàngal waaye moom ci moom moo jàngal boobu sax moo jël tàmbalee jàng ba mu ne bismillahi rahmani rahim daa ne ah tur yi de tur yu baax la rahmani rahim maanaam loolu loolu tur tur yu am solo ngi noonu teg ca nag taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa illa tadkiratan liman yaxsha tanzilan mimman xalaqa larda wassamawati alula arrahmanu ala alarshi istawa lahu ma fi lsamawati wa ma fi lardi wa ma baynahuma wa ma taxta alsara wa in tajhar bilqawli fa innahu yaclamu sirra wa axfa ba àgg ci li suñu borom wax ne innani ana allahu la ilaha illa ana faabuduni wa aqimi salata li dicri bi mu àggee foofu la daal di wax ne ah wax ji de mosuma dégg wax ju di mel wax ju mel nii daal mosuma ko dégg tàmbali di ko yëm gaa yi xam ne saa yi moom léegi mbiram mbiram jeex daan léegi wan leen moom Muhammad léegi ma ma ma ma dugg ci lislaam ñu far benn nag xabaab sëñ daara bi bi dina jàngalaat di génn ne ko yow de war ngaa sant yàlla ndax barki démb dégg naa Seydina Muhammad di ñaan yàlla dëgërale diina ji yow wala Abu Jahl ku ci gën a ku ci yàlla gën a bëgg rek mu mu def la nga dugg ci islam kon nag yow nga sant yàlla mu ne ko nan dem kon ci Seydina Muhammad ñu daal di ànd dem ci Seydina Muhammad ci ci fi ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam mooy kër gañ daane bañ demee Omar mi ngi yor jeexeem bi ñu agsee ñu daal di fëgg bunt bi fekk booba jullit ñi bu ñu mësaa nekk ci kër gi dañ faa def ab bën bën boo xam ne boo ñëwee dañ lay yër ba xam yaay kan doo ko ubbi aywa kenn ci jullit ñi yër rek seen mu seet naa Omar ak ràngoo jeexeem ñu ne ah Omar de Omar de la ñëw boo xamuñu lu muy lu muy wut fekkoo Seydina Hamza mi ngi Seydina Hamza ne leen kum doon ñu ne ko Omar mu ne bu dee Omar nag ubbi leen su ñëwee jàmm tax koo jóg dana fekk jàmm waaye bu ñëwee te leen tax koo jóg ci jeexi jooju mu yor lañ koy faat ubbi leen ko fekk boobu yonte bi nee na ma ñu am na wax yu bi wàcc ci moom moo tax boobu li ñuy wax ni booba maanaam maanaam ñëwagul nee na suñ ko ubbee noonu yonte bi jógee fa mu nekkoon rek ñëw daal di koy kattanu rek poñ ko ne ko Omar yow ci lii nga nar a sax ak kéefar ba dugg sa war doo doo dikk ci li ne mu ne ko dikk naa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah maa ngi seere ne yàlla rek moom mooy buur te yow rek yaay ab yonenteem bi mu waxee loolu waa ñi nekkoon ci jaraay bi ñëpp daal di wax allahu akbar ñu daal di kàbbar seen seen xel dal na xam mën a Omar moom day jàmbaar tey lu mu dugg moom lu duggantu Omar doy koo xam lu duggantu moom ba mu nekkee di duma ñe maanaam maanaam bi mu nekkee ci kéefar gi itam moo gënoon a sonal jullit ñi daanaka jaam ñi mu yoroon da wax na ne bu leen daddoor da leen di dóor ba loxo bi toq mooy leen damaa sonn rek waaye su ma noppaloo del siwaat moom noonu leen daa def moom bu noppaloo itam del siwaat bi mu jëbbaloo itam Omar ci moom moo nett li ñu ibnu Ishaq wax na ne Seydina Omar daa daa wax ne bi ma bi mu jëbbaloo ne damaa toog xalaat ñi gën a sonal yonente bi ci dëkk bi ma xool leen xam ne Abu Jahlin mooy ki gën a sonal yonente bi ci dëkk bi ne ma waa ko dem këram bi ma ñëwee fëgg mu ubbil ma tàmbali nag jàmmante ah Omar jalisil tàmbali wax ahlan ahlan wa sahlan ne ma ne ko man day gëm naa yàlla te xam ne moom rek moo yàlla ci xërim yi ay caaxaan yonente bi Muhammad dëgg la maanaam li mu woote lépp dëgg la te te gëm naa ko ne Abu Jahl sëqaat wax ne ma ne ma yàlla na la yàlla faat nga am li nga indi dara bokk ci demal Omar nee na yëm ma ci loolu dafa dem ci baayam bu ndaw wàllu nijaayam bi ñu wax bi ñu daa wax al-Aas ibnu Hashim al-Aas yi ibnu Hashim baayam bu ndaw fekk booba nee na ku ma saa dugg ci lislaam say mbokkom faw buñ ko yëgee faw ñu fekk la fa nga ne dóor la woon dóor yu metti nee na moom moo tax man it dama fa jawal jawalit ca nijaayam la jawali ne ko jàmmate moom ba àggal ne ko man daal suñ bi dugg naa ci ci lislaam gëm naa yàlla xam na rek moom moom rek mooy yàlla muhammad it yàllaa ko yónni li mu indi lépp dëgg la nee na noonu laa ko toppe ku ma xam rek ne maanaam ku doy waar la te mën a sonal l'islam ma dem leeral ko sama ngëm yëmu ci loolu sax dafa am ku ñu wax ku ñu daa wax jamil ibnu maamar al al jumhi nga xam ne moom ca dëkk wala nekkoon nga xam ne moom lu waaye bëgg mu siiw wax ko ko te ne ku ma saam xibaar boo xam ne bëgg dëkk bépp xam ko da ngay dem wax ko waajo ji rek jamil moom moom ñaari maanaam simila ak saala moom dëkk dëkk yëg ne moom moom yëg yëg xibaar boobu nee na ma dem ci jamil ibnu jamil moomu ibnu maamar al jumhi ne ma ne ko daa am lu ma lay xibaar mooy man damaa dugg ci lislaam te dama bëgg dëkk bépp xam ko koo taseet lay wax ko ko ne mu ne ma loolu am na lu ci gën a gaaw xaaral gannaaw gaa ñëpp nga ci penco xaaral ma dem taxaw ci kaw safaa rek yéene ko daal def noonu dem taxaw ci kaw safaa neen waa dëkk bi daa am lu ma leen di xibaar ñëpp déglu may leen Omar bàyyi na seen diine ji léegi ma ngi ci lislaam nee na bi ma ko waxee loolu Omar nee na waaleykum salaam Seydina Omar nee na malaat kay teg ne waxu dëgg de maanaam maanaam génn moom xeet lim ne ko génnaw xeet la ne génn moom xeet de damaa jébbul dugg ci lislaam xam ne yàlla ci moom mooy mooy mooy buur te Muhammad mooy ndawam loolu la def nee na waa waa nee na gaañu bari ku ne kenn ku ne fexe fa nga nekk rek ñëw song na ne muy xeex ak ñoom di xeex ak ñoom nga xam ne ak suba la nee na ba ba digg bëccëg naaj wi tàng jëpp maanaam ñuy xeex ak moom ba mujj Omar nag laajteel nga xam ne moom amul mënatul kattan ndax léegi nit da ko dóor fi mu mu fayonte moom keneen dóor ko ci ginnaaw topp noonu léeg-léeg mu daaneel kenn léeg-léeg kenn ñëw fekk ñu def ko suba ba ba bëccëg mais mu sonn gars yi doo ko fekk mu ne nag war ko di ko dóor di ko dóor dóor yu métte métte métte métte métte nee na mu wéy rek moom Omar di leen wax daal lu leen neex def leen man daal dugg naa ci lislaam di leen naqaral di wax wax yu mel noonu nee na fi saa si itam am ñu ñëw àtte ko ba mu jug ba dem këram waaye teewut ñu ne daal nañ ko fekk jekkali ko ndax gannaaw daal fi ne sonn nañ ko fekk këram jekkali ko ndax Omar moom buñ ko bàyyee ba mu ba mu féexaat ba am kattan fi ne kenn mënut a xaar moom. ci loolu la am ku ñu wax Aas ibnu Waayil as-Sahmi moom mooy mooy mooy ka ko xetli ci loolu ndax moo ñëw kër Omar waxtaan ak Omar. Omar daal di gis ni Omar mel xam ni itam waa dëkk baa ngi ñëw ngir di ko faat si mu génn wax waa dëkk ba xëpp leen ne leen waaw fu ngeen jëm fekk dafa génn tase ak ñoom ñu ñëw mu ne fu ngeen jëm ñu ne ko Omar moom lañ bëgg a jekkale mu ne leen ah yéen a ngi ci yéen a ngi ci lu kenn xamul dëpp leen daale wax fekk moom it xam naa kuñ weg la woon gaa ñi xamuñu lu nekk ci kër gi ak gaa ñi waaji moo tax ñoom ñëpp ñu daal di arrière dëpp loolu kon mooy digganteem ak yéefar yi waaye jullit ñi itam di Omar jébbaloo ñoom ñëpp dañoo bëgg wax nañ ne wax nañ suñ Seydina Omar ci moom moo ko daa moo ko daa nettali sax moo ne moom bi mu jëbaloo dafa wax yonte bi ne ko waaw noonu ci dëgg la nekk wala ci fen yonte bi ne ko ci dëgg la ne noonu kay noonu rek a nekk ci dëgg mu ne ko waaw nëbbutu gi mu nëbbutu lu ko lu tax léegi dama bëgg mbir mi lu ko fësal nañ ko wax ci kaw amatul làqatu kuy julli nu dem ca Kaaba ga julli fa lu lu ñu ci fekk rek nu xam ko nee na daal ne ko duñ ci yem sax yow booy dem ca Kaaba ga dama woo julli ñëpp nu ànd yow escorte la nga nu dem nga ànd julli noonu la defee nee na bi nee na ba yonte bi dem ca Kaaba ga nee na dama maa julli ñëpp dama leen woo ñu ñëw ma nekk ci wetam ndajoram Seydina Hamza nekk ci wetam càmmoñ ñu ànd ak moom di dox dox boo xam ni manifesté wu ci dëkk bi ñëpp xam ne ah nee na waa waa dëkk bi nag ñu ci penc mi waaye seen xol yi waaj a dagg maanaam ñëpp mer mer moo xam ni ndax ñoom ñi xam nañ Hamza xam nañ xam nañ xam nañ Omar keroog nag la ko yonte bi tudde alfaaruq loolu suñ bi wax na ko lu bari bari mooy bi mu duggee ci diina rek la islaam maanaam kawe tam la jóg ku ci teewlu yenn dégg ay lu bari bari la dama cee teewlu yenn ay bari na ci téere yi sañ moo xasir yëpp
أما أبو بكر الصديق فسمي
baarakallahu fik maanaam sëñ bi wax na ko ba tey ne bihi ta'azzaza diinullahi loolu fu mu nekk daal murtasaan baarakallahu fik maanaam ci moom la diine suñu borom bi ci moom la suñu diine suñu borom bi maanaam amee doole ci moom la dëgëre ci la ñëpp yigee maanaam seen bopp ci biir din sayyiduna ayo ayo lan sax mooy loolu ma wax rek li ma bëgg wax rek mooy maanaam ci moom ba mu duggee lislaam rek ndax loolu borom saxaaba yëpp moom lañ maase wax ibnu mas'ud dafa wax ne maanaam kunna la la ma kunna naqdiru an nusalli inda alkaabati hatta aslama omar maanaam bi omar jëbbaloo ci lañ tàmbalee ñi mee julli si ci jàkka bi Suhayb ibnu Sinaan Ruumi itam loolu la wax da wax ne bi Omar duggee ci lislaam ci la lislaam ci moom fës ñëpp tàmbalee fësal seen lislaam kenn ku ne bu la neexee wëri kaaba ga bu la neexee julli fa lu la neex def te kenn du la wax dara